sëriñ Thierno Bousso sëriñ Thierno Bousso mi ngi gane àdduna ci atum 1906 ci dëkk bu sell bi di Touba di doomu sëriñ Omar Bousso ak ku ñuy wax soxna Daaro Bousso bi mu feeñee jamono ci atum 1906 maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal Daaro moo ko tudd tudde ko boppam sëriñ Thierno Bousso Daaro doomu soxna Daaro Bousso la soxna Daaro Bousso doomu sëriñ Boussoobe Bousso la sëriñ Boussoobe Bousso ak soxna Jaaratullaahi ñoo bokk sëriñ Ma Bousso sëriñ Thierno Bousso waajuram góor mooy ñuy wax Bousso sëriñ Omar Bousso doomu sëriñ Saa Bousso la sëriñ Saa Bousso mi doomu sëriñ Maa Bousso la sëriñ Ceerno Bousso mbokkum ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim la ci wàllu gune sëriñ Ceerno Bousso benn doom la ci waajuram jigéen wi di soxna Daaro Bousso waajuram dadaa def lu am mu dellu ginnaaw buñ ko yëgalee ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim nag la sëriñ Ceerno Bousso feeñ jamono laataa ñuy ñëw ci mbirum sëriñ Ceerno Bousso Daaro ñu wax leen kan mooy waajuram wu jigéen wi di soxna Daaro Bousso doomu soxna Xari Faati la ak ñuy wax sëriñ Busoobe Buso moom soxna Daaro Buso am na ñu mbokkal soxna Xari Faati mi ak sëriñ Busoobe Buso ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna Yaasin Buso ak ku ñuy wax soxna Assu Buso ak moom soxna Daaro Buso mi ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñett muy soxna Yaasin Buso soxna Assu Buso ak moom soxna Daaro Buso soxna Yaasin Buso mi mbokkal waajur wu jigéen bi matee dem kër sëriñ Busoobe Buso sëriñ Afiya Mbàkke la ko jébbaloon mu am ci sëriñ Xaas Mbàkke soxna Assu Buso bi matee dem kër sëriñ Busoobe Buso sëriñ sëriñ moor binta la ko joxoon bu sëriñ maxtaar pend si sëriñ maxtaar pend si miiti moo meññ maam osmaan si mi meññ maam cheikh El Hadji Malick soxna assu buso am na ak njaboot ak sëriñ moor binta si mii ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna ummi si soxna raabi si soxna safiyetu si soxna aminta si ak sëriñ aadi si njabootuk soxna assu buso gii di doomu sëriñ buso bi buso ginnaaw ñu ko joxee sëriñ moor binta si mu am fa njaboot googu ñu leen tuddal soxna ummi si bi mu matee dem kër sëriñ daam buso lañ ko joxoon bu sëriñ moodu buso bu sëriñ mbàkke buso ñaareelu doomu soxna assu buso ak sëriñ moor binta si di soxna raabi si moo meññ ku ñuy wax elaaji bamba ñang ak sëriñ abdul aziz ñang ak seen jigéen ba soxna faati ñang ñoom ña nga féetee ci dëkk bii di mbos ñetteelu doomu soxna astu buso bi ak kii di sëriñ moor binta si ñu koy wax soxna safiyatu si moo meññi maam xari buso maam xari buso bi matee dem kër sëriñ muudu maamun ñang lañ ko jébbaloon mu am ci ku ñuy wax sëriñ ilimaan ñang soxna awa ñang biñ jox sëriñ fàllu soin ñang bi nekk poroxaan ñeenteelu doomu soxna assu buso bi ak sëriñ moor binta si ñi koy wax soxna aminta si moo meññ sëriñ abdu aziz jéey ilimaan ca cees meññ seen jigéen ba soxna nday busa jéey ca tiwaawoon ak ku ñuy wax soxna roq ye jéey ak ku ñuy wax soxna alimatu si moom bi matee dem kër moom soxna alimatu si mi sëriñ mansuur si lañ ko jébbaloon mi nekkoon ñaareelu xalifa maam cheikh el hadji malik si sëriñ haadi si mi doomu soxna assu buso ak sëriñ moor binta si moom guddul aw fan dafa dafa teel a génn àdduna waaye bi mu génnee àdduna moom sëriñ haadi si soxna assu buso di waajuram da ko doon jooy jooy yu metti bi nag la maam cheikh elaaji malik si di xamal soxna assu buso di ko wax ne féetale naa la maam abdul aziz si malik da baax mu nekk sam aadi cër boobu soxna assu buso sàmmoon na ko ci maam abdul aziz si malik da baax loola itam maam abdul aziz si da baax sàmmoon na ko ci soxna assu buso bi wala ci njabootu mbusoo be gi ba tax na heure bu masaa ñëw tuubaa daana dem gedde seeti soxna ummi si mii mi sëriñ daam bu so yoroon ndax kat waajuram maam cheikh El Hadji Malick si xamaloon na waajuru soxna ummi si mii di soxna assu busoo naka sa doom jo di sëriñ aadi si moom laa la faye maam abdou aziz si malik mi relation bi mu amoon Tuubaa itam mooy doom la ndax waajuram di maam cheikh El Hadji Malick si moo ko jébbaloon soxna assu busoo bu sëriñ busoo be buso ngir mu wuutu sëriñ aadi si moom mu amoon ak sëriñ moor binta si ñaari doomu soxna xari faati si yi ak sëriñ busoo be Bousso Bousso di soxna Daaro Bousso bi matee dem kër sëriñ Omar Bousso lañ ko jébbaloon mu am ci sëriñ Ceerno Bousso mi ñuy waxtaane tey jii bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Ceerno Bousso Daaro waajuram sëriñ Omar Bousso moo ko it nijaayam sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ Mbàkke Bousso moo ko dalal alxuraanul karim moom sëriñ na Bousso ginnaaw bi nag li ko jébbalaat waajuram sëriñ Omar Bousso mu nekk ci loxoy waajuram sëriñ Omar Bousso ba mokkal kaamil bi bi matee jàng nag lii di xam-xam waajuram sëriñ Omar Bousso sëriñ yaatoon sëriñ mbàkke buso nag sëriñ asan buso la ko jébbaloon ngir mu jàngal ko xam-xam ba mu fay nekk sax nekkandoo na fa ak sëriñ muhammadan jobbe moom sëriñ masàmba mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ buso ilimaan ginnaaw bu mu jàngee as lëf ci sëriñ asan buso ci wàllu xam-xam sëriñ mbàkke buso nag yóbbu woon na ko ci dëkk bii di jaamal nekk nag ci suuf sii nag di saalum moo ñuy wax sëriñ maram buso di doomu sëriñ masàmba kandi buso ñoom ñaar ñoo fa àndoon dem jàngi def nañ fa nag ab diir cheikh mamadul basir mbàkke doon mu dem ndar géej wéel am njàngam mu doon sàkku nag ci sëriñ maram buso bu sëriñ ma sàmbakandi buso mu dem sookoon wéel am njàngam ginnaaw bu sëriñ cerno buso daaro jógee nag ci dëkk boobu di saalum ci suuf su nag di jaamal fas yéenee dem ndar nag ci ndigalul cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim ci dëkk bii nag di luga loolu la fekk cheikh mamadou mu baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddiim cheikh mahamadou lamine baara mbàkke saafonte naag moom ginnaaw nag di ko laaj fan mu di ko xamal ne ndar géej xam-xam cheikh mohamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xadim joxoon na ko ndigal di ko wax ne soo demee ci sama kër gi nekk ndar géej nga féete fa ndax kat sëriñ omar mbàkke moo fa nekkoon waaye nag sëriñ omar mbàkke jamono ji dafa solo ji soldaar sëriñ omar mbàkke nag doomu sëriñ cheikh coro la sëriñ baara mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xadim ab lettre sax la bindoon jébbal ko sëriñ Ceerno Buso di ko xamal ne boo demee nga fekk fa ku ñuy wax soxna sukkay na géey soxna sukkay na géey nag maam ba cheikh mamadou lamine baara mbàkke ma ngi koy xamal ne soxna sukkay ne géey ma ngi ca kër ga ak ku ñuy wax soxna indo mbàkke soxna indo mbàkke mii nag ak sëriñ omar mbàkke mii ñoom ñaar ñoo bokk sëriñ cheikh coro mbàkke moom mamor anta sali mbàkke sëriñ ceerno buso daaro ci ndigalul cheikh mamadou lamine baara mbàkke la nekkee ci kër cheikh mamadou lamine baara mbàkke ginnaaw lettre bu cheikh mamadou lamine baara mbàkke bind jox ko ko bi mu nekkee ndar googu ci kër mu mamadou lamine baara mbàkke ngir defa jàng nag lii di xam-xam mook sëriñ abdul aziz si malik da baax mu nekkoon xalifa tiwaawoon ak ku ñuy wax sëriñ ma saxeer loo kokki ak ku ñuy wax sëriñ omar jàllo ñoom ñi ñoo bokkoon genn daara juñ njaa jànge xam-xam ci ndar géej bi sëriñ ceerno buso nekkee ci dëkk boobu di ndar géej ci kër cheikh mamadou lamine baara mbàkke gi soxna sukkay ne géey mii maamu cheikh mamadou lamine baara mbàkke bindoon na lettre cheikh mamadou lamine baara mbàkke booba cheikh mamadou lamine baara mbàkke mi ngi ci mbàkke kajoor ca lettre ba soxna sukkay ne géey mi ngi doon sàkku ci soxna indo mbàkke mu delsiwaat ndar googu ndax kër ga kat dafa wéetoon booba nag soxna indo mbàkke mi ngi ci loxoy cheikh mamadou mi ngi doon tontu maamam jooju di soxna Sukayna Géey ci biir lettre bi di ko wax ne lettre bi ma bind de jot naa ci waaye jamono jii nag maa ngi ci sama kër gi nekk Mbàkke Kajoor ak wéradi nag moo ma dal waaye heure bu ma féexee soxna Indo Mbàkke dana mën a dilsiwaat ci Ndar yónnee naa la ñaari bool yu def ab dund teg naa ko nag ci loxoy ku ñuy wax Babacar Njaay ngir mu indil la ko foofu ba tey Sëriñ Baara mi ngay bind ca lettre ba di wax soxna Sukayna Géey mu nuyul ko ñaari doomam yooyu nag nekk foofu ci Ndar muy Sëriñ Siidi Mbàkke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ak Sëriñ fall mbàkke moom sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ak mbooleem nag waa kër gi di ko wax ne daal li ngay sàkku muy soxna Endo Mbàkke ñëw tawat gi ma tawat rek moo ma dal waaye bu ko suñ borom saafara danaa dellu luga ci sama kër ga su boobaa nag soxna Endo Mbàkke dana mën a ñëwaat ci ndar googu wéttili si la lettre bi nag bi ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke bindee ci loxoy sëriñ Ceerno Bousso lañ ko teg ñu dégtal leen leetar bi a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa muhammadin nabiyil kariim ammaa ba'd min muhammad aminil كلام موجبه كلامك بأني رأيت براوتك وفهمت الخطاب وقد وجدني في مكة جور فتركت هند في الدار وحدها ولولا ذلك لتأتيك ولكن قد أرسلتك عصاصين من الزرع على يد بابك الجاه في كلمة ليوصلها إليك وسلمي لي على سيد مبكي وعمر فال جميع أهل الدار والسلام أنا كنت مريضا في مكة كجور فإذا عافاني الله تعالى نرجع إلى اللوغة وتأتيك هند إن شاء الله allah wa anna la uxaalifu salaam soxna Sukayna Gaye itam tontuwaatoon na sëtam boobu du Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ci ab lettre waaye lettre bi nag duñ leen mën a jàngal lépp dañ leen ciy junjal tuuti rek ci loo xam ne nii ca lettre ba la bokk lettre ba nag Serigne Thierno Bousso moo ko doon bindal soxna Sukayna Gaye ginnaaw bu ñu nuyoontee mook Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ci fayum nuyoo di seetaale Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke nag ca lettre ba di ko wax ne lettre bi ñu jotoon de yaa ngi ci doon wax ne dangaa tawat waaye ñu ngi lay ñaanal suñ boroom fëgg sa bopp ba ak tane Thierno Bousso itam ma ngay feddali ca lettre ba kóllëre gu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke am ci moom ak moom itam kóllëre gu mu am ci Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ci nekk googu mu nekk ci kër googu di ndar ñu digtal leen tuuti rek lu bokk ca lettre ba aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim fa min aljaddati alharimati sukaynat bey akmal salaami wa atyabul kalaami ila sayid alkarim mohamad al amin Mbàkke nuallimuka bi annana ala xayri wa aafiya in kunta kadalik walhamdulillahi المعافي وبعد السلام والزيارة والعود على الحمى عند بك كجور إن خففها الله ذلك الله تخفيفا مع أني أستجد حبل الوصال وألا تنساني بدعاء الخير في الدنيا والآخرة لأنك المرجو يوم الإغاثة ونحن مستغيثون وأنت الغوث الكافي على الشاغل lettre boobu ngeen doon dégg nag indi luñ leen lépp lettre bi li ci des nag soxna sukkay na géey mbiri boppam nag la ci doon lijjante ak Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké loolu moo tax nag ñu ngi leen di ji jéggulu li des ci leetar bi leetar bi nag sëriñ Ceerno Buso Daaro moo ko bindaloon soxna Sukayna Géey ngir ñu jébbal ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ci Mbàkke Kajoor ginnaaw ndar googu nag bi fi sëriñ Ceerno Buso Daaro jógee la delsiwaat gedde nag ci loxoy sëriñ Asan Buso mu nekk ñaareelu yoon ci loxoy sëriñ Asan Buso ci gedde googu nag lu jógewaat sëriñ Mbàkke Buso boole kook sëriñ Touba Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ Mbay Diba ngir ñu dem njaareem yóbbu Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ngir mu dem jàngi ci dem bu njaareem bi cheikh abdou xaadir mbàkke di nekk ci loxoy sëriñ mouhamadu dem bu njaareem sëriñ ceerno busoo la àndaloon waaye nag sëriñ ceerno busoo jàngul woon ci sëriñ mouhamadu dem daa àndoon ak cheikh abdou xaadir mbàkke njaareem googu itim diir bañ fa def matutum at ñu delsiwaat gedee ci loxoy sëriñ asan buso sëriñ mbàkke buso mi nekk seen nijaay mook cheikh abdou xaadir mbàkke laajoon na leen ñoom ñaar kenn ku ne bëgg a jànge cheikh abdou xaadir mbàkke di ko xamal su ma sañoon des gede buso Ibrahima Bousso ne ko nag mu dem njàmbur ci ku ñuy wax sëriñ Moor Galaay Jaw bi mu egsee ci dëkk bii di Daarul Muxti fekk fa turandoom waa maam na di ko xamal ne dama bëgg a dem ci njàmbur ci kër sëriñ Moor Galaay Jaw ngir wéyal fa sama njàngum xam-xam maam Ceerno Ibrahima Faati ne woon na turandoom woowu di sëriñ Ceerno Bousso di ko xamal ne sëriñ Moor Galaay Jaw de tàggewuñ ma ko waaye yëg naa ne génn na àdduna doomam ja na ku ñuy wax sëriñ Makumba Jaw ma nga fa xam naa ne soo demee laajte sama taalibe ba fa nekk ku ñuy wax ngañ jaañ nga ne ko maam Cerno Ibrahima Faati moomu booleeg yow moom dana la teg ci yoonu kër sëriñ Moor Galaay Jaw ginnaaw bu ñëwee ci dëkk bii di ngaay ku ñuy wax njaga jaañ nekkoon taalibe maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru njaga jaañ mi teg na ko ci yoonu kër sëriñ Moor Galaay Jaw mu dem nag fekk fa doomu sëriñ Moor Galaay bi ñuy wax sëriñ Makumba Jaw mu wéel fa am njàngam ci dëkk boobu di njàmbur sax laataa mu fay jógee ci tund wii di càlleen sëriñ Cerno Buso Daaru jikkoom taxoon na ñu bari ca tund wa jébbal ko seenu ba tax na sax ginnaaw ba mu jàngee foofu ba jóge fa ba taxawal nag lii di kër sëriñ ma kumba jaw jébbaloon na ko doomam ju ñuy wax soxna xadi jaw mook soxna xadi jaw nag am nañ ak njaboot ñu ràññee ku ñuy wax soxna moomi busoo ak soxna nday busoo mu del siwaat nag gede kër nijaayam ñu taxawalal ko nag lii di kër boole koog doomu sëriñ mbàkke kandi busoo ku ñuy wax soxna xari tuuti busoo moo meññ sax taawam bii ñuy wax cheikh mamadul faadal busoo mu nekk ak soxna xari tuuti busoo mi ci dëkk bu sell bii di tuubaa def fi ab diir ak moom ginnaaw bi nag la dem ci cheikh mumudul mustapha mbàkke mi nekkoon xalifa xaadim rasuul booba mu cheikh mumudul mustapha mbàkke mi ngi gor dëkk bii di taayif ci atum 1939 di ko xamal ne dama bëgg liggéeyi ndax kat doomu soxna laata jàng naa ba noppi waaye sama xel mi nag dafa nekk nag ci dem daani sama doole cheikh dul mustapha mbàkke laajoon na ko moom na bu sa daaro fan la dem a ceex na bu sa daaro di ko wax ne dama bëgg a dem ngin ngi néew fekki sama mbokk ma sëriñ xaas mbàkke Mouhamadul Moustapha Mbàkke mi nekkoon xalifa xaadim rasuul mi ngi doon xamal sëriñ Ceerno Buso di ko wax ne lool nga wax de noonu la ndax ànd naa ci soo ñëwee fekk ma ci dëkk bi may gor di Taayif Mbàkke ngir laaye biir doomu soxna yi jort ne waruñoo liggéeyi loolu rek moom moo tax sax ma nekk ci àll bii nag di gor waaye man ngaa dem Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbàkke tàggatoo naa ak moom ci dëkk bu sell boobu di Taayif ñaanal ko boole koog nag ku ñuy wax sëriñ Muudu Jóob booba nag wax mu ne mamadul nee na nga jox ma saaku pepp saaku pepp boobu nag jël ko yóbbu ko kër ga ngir waaje ko ngir mën a dem foofu nga bëgg a dem bu jeexee nag te demoo nga ñëwaat wax ma ko ma waxaat du Jóob mu joxaat la pepp keroog bi sëriñ bu sa Daaro di dem ci dëkk boobu di ngin ngi néew di fekki mbokka ma sëriñ Xaas Mbàkke taalibeem bu ñuy wax Alioune Gàmmu la àndaloon ak ku ñuy wax sëriñ Siise ak ku ñuy wax Seex Jaañ jaar na nag ci dëkk bii di sëriñ xaas mbàkke nekk na fa nag ab diir nekkandoog sëriñ xaas mbàkke ba ci atum 1943 jàpp 1944 mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax aacu boobu nag taalibeem buñ doon wax fàllu yàdd moo fa nekkoon fàllu yàdd moom nag la fekki nag ci dëkk boobu di aacu sëriñ cerno busa daaro gorul nag dëkk boobu nag di aacu waaye ay taalibeem nag la fa fekki woon ñu far ko féetale dëkk ba ba tax na ñu koy wooye boroom aacu mu wii nag nekk aacu di yar di jàng ak di jàngale di tarbiya sëriñ cerno busa dee leen juboo dee leen dimbalante te dee leen yéeneente nag lu baax ndax melokaan wii kat mooy melokaanu jullit daana leen tere itim ñu moytu di jëw di rambaaj ak di wax lu nekkul nee na melokaan woowu ko du melokaanu jullit kon nag ay taalibeem nañ ko daa moytu loolu la leen daa wax bu amul relation la ak njabootu xaadim rasul gi ndax ma mamadul moustapha mbàkke kër bi muy dem ngin ngi ne du fekk sëriñ xaasim mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko jox ndigal ci dëkk bu sell boobu ci tuuma rek moom moo tax ma nekk ci tool yi ngir doomu soxna yi jort ne waruñoo dem ca tool ya liggéeyi kon nag yow wéyal dem ca tool ya liggéey cheikh Modou Moustapha Mbacke moom sax sëriñ Thierno Bousso tudde woon na ko doom ba tey cheikh Mamadou Fadal Mbacke xaritam la woon mbokkam la woon doomu ndeyam la woon soxna Daaro Bousso ak soxna Awo Bousso ñoo bokk sëriñ Bousso be Bousso ba tax na léppam mu mu dul Fadal Mbacke la ko jébbaloon ba ki ko wuutu sax mu dul Fadal Mbacke la ko tuddee màggal gim doon def itam ca sant kon wóolle réew cheikh mamadul faadal mbàkke la woon cheikh mamadul faadal mbàkke itam bindoon na lettre sëriñ ceerno buso daaro di ko ca laaj ay addiya yu toll ci fukki junni di ko wax ne nag bu traite bi taxawee nga joxe ko ñu teewlu lettre bi cheikh mamadul faadal mbàkke bindoon sëriñ ceerno buso daaro ngir di ko ca laaj addiya ya asalaamu aleykum wa rahmatullahi yow sëriñ ceerno buso accu maa lay nuyu lu bari lool te di la sant bu baax te di la xamal ne naa la nga joxe fukki junni ci mottalib Mamadou Fadal Mbacke dul Mamadou Bachir Mbacke xaritam la woon sëriñam la woon ba ci dëkk boobu di jaamal keroog bi ñu fay jànge ma Cheikh Mamadou Bachir Mbacke moo ko fa jële yabal ko ndar ci loxoy Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke sëriñ Thierno Bousso Daaro tudde woon na ñaari doom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim wëlle réew sëriñ na Bousso Daaro la woon ba tax na kër googu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke amoon ci ndar géej sëriñ Thierno Bousso Daaro la ko féetale woon ci diirub lam fay nekk di jàng boole kooku itam séq nañ lettre yu baree baree baree baree bari yoo xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moo ko bind di ca am lu ca doon liggéey loo sëriñ bu Buso Daaro ku dem ci kàgguy sëriñ na Ceerno sa Daaro yi daa ko gis Cheikh Abdou Lahad Mbàkke kasaalika Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke moo ko jële ci dëkk boobu di aacu ginnaaw bu mu nekkee ci ak feebar te mbokkam la woon moom itam doomu ndayam la woon Cheikh Abdou Xaadir moo ko jullee moo ko taxawu seedeel ko lu am solo ginnaaw buñ ko dencee ba noppi ne mbokk la taalibe la te ku bëggoon xaadim rasul dem na njabootuk sëriñ mbàkke buso itam amoon nañoo moom ak kóllëre ndax seen doomu bàjjen la ba tax na sëriñ asan buso moo ko jàngal lii di xam-xam mook sëriñ asan buso séqoon nañ jàmm ji yaatoo yaatu sëriñ asan buso bindoon na lettre sëriñ ceerno buso di ko ci nuyu nuyu bu yaatu te xoot ngir kóllëre guñ séq ñoom ñaar ak mbokkoo guñ mbokkoo ba tey sëriñ asan buso ma ngay jàmmante ca biir lettre ba di laaj sëriñ ceerno buso baa yaa ngi ci jàmm ak sa jàmmi njaboot man nag maa ngi ci jàmm ak sama jàmmi wax ngir mu yit la ko sëriñ Assane nag ma ngay wax ca biir lettre ba sëriñ Thierno Bousso nag ne moom dana sàmm kóllëre ga wax ju yaatu daal la wax ca lettre ba ñu teewlu ko aoudu billahi min ashaytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim amma baadu fa minni ilayka ayyuha al axu salih ibrahim kaana lana wa laka rabbuna albarru rahim azka salaamin wa axsanu taxiyatin wa ixtiraam yali dalik al iclaam ana ala xayrin wa sual an xaalikum wa xaali jamii ahlikum fa inni arsaltu ilayka ilayka xaamilul barawa ibrahima fall muakidan lil ahdi wa mujaddidan li xablil wudd waliya'i bima tayassara min dalik ma'yuran mashkura wassalaam axukumul xasanul mutubiyu lutfullahi taala bihi wa bikum njabootu sëriñ mbàkke kandi buso ci njaboot googu sax la taxawale kër ndax doomu sëriñ mbàkke kandi buso la dëkkoo woon muy ku ñuy wax soxna xari tuuti buso ba tax na sax moo meññi kii ko wuutu di mu dul faadal buso ak ku ñuy wax soxna may buso soxna may buso moom lañ jébbaloon sëriñ cheikh may am ci sëriñ moor mbàkke sëriñ jiili mbàkke ak seeni rakk njabootuk sëriñ ma sàmba bu buso itam ay doomi nijaayam lañ ba tax na sëriñ maram buso bu sëriñ ma sàmba kandi buso ñoo jàngandoo ci dëkk boobu di jaamal sëriñ xaas mbàkke bu sëriñ aafiya mbàkke léppam la ba tax na bi mu jugee tuubaa moom la fekki woon ci ngën gi néew mook sëriñ xaas moom benn lañu woon ndax ñoo bokk lépp njabootuk cheikh ma sàmba mbàkke sëriñ muhammadan jobbe ñoom ñaar ñoo nekkandoo woon ci loxoy sëriñ asan buso di jàng nag lii di xam kon ku amul kóllëre la ak njabootuk cheikh Masamba Mbàkke ba tax na boo demee ci ay kàggoom mbindum cheikh Masamba Mbàkke mu bari ma nga fa maam cheikh Anta Mbàkke boroom dërëm ak ngërëm ku fonkoon na bu sa Daaro la ba tax na biñ arrêté maam cheikh Anta Mbàkke ci dëkk boobu di Ndar Géej sëriñ Ceerno Buso Daaro demoon na fa sax seeti maam cheikh Anta Mbàkke bisub kero sax maam cheikh Anta Mbàkke jébbal na ko ay dàlli boppam dàlli yooyee ko maam cheikh Anta Mbàkke jébbuloon kero bi mu ko seetee ci biñ ko arrêté ci Ndar Géej dàlli yooyu njabootu sëriñ Ceerno Buso Daaro mi ngi ak daaru bii di sëriñ fàllu buso sëriñ ceerno buso bindoon na lettre maam cheikh anta mbàkke bi tollee ci jàng xam-xam ginnaaw bu ko nuyoo ca lettre ba ma ngi koy wax sopp gum sopp maam cheikh anta mbàkke ak kóllëre guñ amoon ñoom ñaar mu di ko xamal ne bu dul woon ak xam-xam bi may sàkku de maag yow li ko waaye nag sàkku xam-xam dafa nekk lu munta ñàkk ci doomu aadama bi ndax day tax mu xam fan lay teg ab tànkam guddi gii ñu dëgmal nag muy guddig laylatul xadar ma mu fi jógee nag géde laa jëm te yéenewum faa jóge ci li des ci sama dund sëriñ Thierno Bousso ba tey mi ngi wax maam Cheikh Anta Mbacke ci lettre bi di ko wax ne dafa mel ne fan yi dégg naa ne dangaa tuxu ndakaaru ci sa kër ga nga fa am waaye nag ñeewantu naa la lool ndax mag gi nga nekk waaye nag maa ngi lay ñaanal ndakaar googu nga nekk dara bañ la fee jot ci diirub nag li ngay dund kóllëre gi ma séq ak yow itam nag nga sàmmal ma ko ñu teewlu lettre bi sëriñ Thierno Bousso Daaro bindoon maam Cheikh Anta ngir di fasanteeg moom ak kóllëre ak di sàmm kóllëre giñ séq min ibni daifi walxaqiri alxafifi alfaqir ila lutfi mawlaahu latif akmalu salaami wa atyabu alkalaami ila al abi walcheikh alhumaam walalam ala alxaas walaam alxaaji cheikh Anta Mbàkke fi daari salaam alchahiri ala sairi sawaadiyiina walbayaadiyiina alfaransiyiin bi alxaaji sayid almuxtaar Mbàkke rayaanu almiski walzafaraan walainafaanana allah wa iyaakum an makaayidi llain amma baad nuallimuka bi annana جميعا على أوفر الخير والمير فإن كنتم كما كنا حمدا وشكرا لله الحميد على موافقة المرغوب مع سؤالي على عافيتك وكيفية الجسد والهرم لأن الهرم كافية سقما مع أني أستجد العهد القديم على ما بيننا من المودة الكثيرة ولولا التعلم لما أقمت عن ذلك ولكن لقد عاقني عن إتمام ما أنويه بصحبتي إياك wa anna taalluma على ما سيصلح أعمالنا واجب علينا فالآن أريد الانصراف من هنا ليلة القدرية القابلة إلى أوطاننا جدش ولست بذاهب فيما نويته من بقية عمري وفي الأيام الماضية أخبرت بمجيئك دكار وخفت من جسدك مرضا لضعف القوة وكيف وكيف لا يصيبك مانع من الروح معك ولا تتناسى ابنك الغريب الحبيب على دعاء ما يصلح أحواله لأن innani garibun laysa algaribu fawqa wa laysa alhawdi gayra allah wa duaika almarju min aladabi al alim amin wassalaam sëriñ Ceerno Buso ko amoon kóllëre la ak sëriñ Muudu Maamun Mbàkke ba tax na tudde na ñaari doom sëriñ Muudu Maamun Mbàkke séqoon nag jàmm itam El Hadji Tàkko Mbàkke bu maam Cheikh Anta Mbàkke njabootu Xaadim Rasul gu jigéen gi itam ñi ci baree bari tudde na leen doom ñu ràññee ci soxna Muumi Mbàkke bintu sëriñ Tubaa Seexul Xaddim ak soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seexul Xaddim ci gàttal daal yoonu murid gépp soppeb sëriñ Ceerno Buso Daaro lañ woon sëriñ Ceerno Buso Daaro dem na màkkatal mukarama ci atum 1968 keroog bi muy dem ku ñuy wax sëriñ Fàllu Mbàkke Landang la àndaloon ak ku ñuy wax sëriñ Elaaji Ma Jóob bu Aaco ak ku ñuy wax sëriñ Cheikh Mbay ak ñeneen ak ñeneen ñu mu àndaloon ci yoonu Màkka wa ci atum 1968 mu wéy nag des Aaco ba ni mu génnee àdduna ci atum 1989 mu nekk ku kiimaane ku fonkoon njabootu xaadim rasuul gi te njabootu xaadim rasuul gi fonkoon ko ndax mbokk la taalibe tax na soo demee ci wolofal gi ko Baye Lamine Diop way Baye Lamine jóob ma ngay wax lu baree bare baree bari ci jikkoy sëriñ Ceerno Buso Daaro mi ba ci bisub keroog bi ko ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim wooloo soxna Daaro Buso di waajuram di ko wax ne mu wool ko sëriñ Ceerno Buso keroog bi sëriñ Ceerno Buso demee ci loxoy ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddim Seexul Xaddim piisu may lus la ko jébbaloon ak ñaari kees keesi miskit ak suukaru peñ ngir mu jox ko waajuram sëriñ Omar Buso boole ko nag di ko laaj fan la am njàngam tollu ak di ko ñaanal ak gudd fan moo tax na sëriñ Cerno Buso dund na ci lu toll juróom-ñetti fukki at ak ñeent ndax seexul xaddiim moo nekk woon da gudd fan woolu goo ko seexul xaddiim woolu woon ci njaarim ak lam ko jox ak lam ko wax ak boole koog nag sëriñ Cerno Buso ni mu bokkeek Sénégal ak ni mu bokkeek yoonu murit loola la bàyyi Lamin Jóob tënk ci ak wolofal tudde ko sëriñ Cerno Buso ma wax la digg mag sëriñ Tuubaa nag ne ko defar te moo defar képp ku jag maam daaro benn doom la am muy Cerno ju dund waaye jur na doom ba sonn mësula am ku judduwaale bakkan waaye mu xam ne yàlla lum moo gën ba ko sëriñ Tuubaa yégee ñaanal ko moo tax mu juddu jooy ñu doon ko muur moo tax juróom ñett fukkam ya toftal néeg bokk am ca at yi yombul man daaro dellu fa sëriñ ba naa ko dellu nu ñaanal cerno yaakaar na mu naa ko soo delloo waxal ma baayam na ko yebal mu ñëw mu naa ma naa dem ba mu taree bindam bisub àllarba la ne ko dencal ñëw te wuy ji sëñ ba mu gonte kër baayam bisub àllarba àllarba fanaane madina mu xëyee la dal di dox jëm njaareem ànd la kenn saa boo jëmee ci moom te ànd ak pas-pas mu roof la kàttan dox sa digg ak iblis te takkusaani suuf a àgg njaareem fa kër sëriñ xaafe la jaar mu di ko yéem moom xëyee sëriñ xaafe dal ko yóbbu ba fa sëriñ tuubaa mu may ko mbubbu sëriñ xaafe moo ko wanaleeg Cheikh Bamba ne maa ngi ko fekk ca gàngu ba mu naa ma noo tudd ma naa ko cer Cerno sëriñ bi naa ma moo di ndax Sam Cerno mu ne ma yaa ngi jàng ak foo ma ne ko saat mu ne bërit di bérlu di tari saar wa xaw ma nag fu mu bàyyee te tafli ca saa bopp ma dal di noyyee loxoom bu tedd ba la tafli teg na ci sama bopp dal dinaa yëg mbir ma mu dal di jug dugg ca biir andi ma ab piis bu mat sëkk bu ñuul tegal ma mu ne ma nañ la ci dogal bu bëgg tubay ak kaala lii ci def sa baay nag ko ko may si tuut mu andi poti mbiskit jox ma muy yaay yoon yom jëli andi yut ma xapeña suukër naa ma lii sa baaleel yot ko sa baay ko ko jox sa baaleel mu del toog ca gàngunaay ba tiim ma ma ko xool ngir melokaan wa yéem ma muy baamu naa ma yow sa ndey rekk la am kon góor nga góorgóorlu bu baax tafas jom la muy wax ak suñu moom xamuma ko ngir day arab te booba man dégguma ko mu daal di ne bismillahi nu génn naa alhamdulilahi nee na sëriñ xaafiya moo ko ŋàbbal suukar sa ak ndimala pot ya laa jël ba ñu àndee dox ba génn kër ga tolloog jumaa laa ko naa kii la mu naa sëriñ bamba te lañ koy wooye waaye xadiija mustapha lay noyee ma ne damaa defe ne woon mooy yàlla mu dal di xaalu dal di tudd du yàlla waaye nit ku baax baax la bari nga man man cerno loo ci jublu lu tax nga wax ko ana loo fa seetlu te ku bañ ak see nuyoo na mu meloon ba mu jugee del si na mu meloon yii mu xeer fecc ba mel ne ab naa yii saa mu xeereer mbaa mu ñuul mooma ci waab moo tax ma yaakaaroon ne moo di yàlla mu dellu xaalu dal di tudd yàlla mboolem ni ñuy dox ni ngi tudd yàlla naa ma ku baax la waaye nag du yàlla ba nu ñëwee mu boole pot yaag piis ba teg ca biir bu gufi ba boole peñ ba am fa ku ñëw tàggu ko jëm si tuubaa mu naa Cerno sëriñ bi moo ko wool woon day dellu mu di ko nettali ma toog di diglu mag naa ko xam naa new fanam du gàtt dana am barke ci diir bu gàtt li ma lu ñuul lii ko sëriñ Tuuba jox mooy tegtalu fanam wu gudd lay cax te kaala gii mu ko digal mooy tegtal ne dana am barkeeg muriidi jébbal loolu lenn la ci luñ leen jukkee ci wolofal gi ko Baye lamin Diop defal bay Lamine Diop yàlla na la yàlla fay ci leeral googu nga ñu leeralal dunduk sëriñ Cerno Buso Daaro sëriñ Cerno Daaro àjjuma bisub altene juróomi fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum ci gàddaay gi altene juróomi fanti ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1410 ci gàddaay gi dëppook muy lundi 4 décembre 1989 lundi 4 décembre 1989 ci dëkk bu sell bi di Touba ci këram muy kër gi jàkkaarloog armeer yu mag yi ci kër googu la génnee adduna ci xalifak sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke lu ko jiitu laata muy génn àdduna sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo yónnoon ku ñuy wax sëriñ Moodu Maamun Buso moom sëriñ Mbàkke Kandi Buso ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Manjaay ngir ñu dem jëlikoo ci dëkk boobu di aaco booba sëriñ na Daaru feebar moo ko tëral ci dëkk boobu di aaco ginnaaw ñu ko jël see ñaari jëmm yooyu ci ndigalul Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke mi nekkoon xalifa général des di doomu Xaadim Rasuul sëriñ Ceerno Buso Daaru woon na doom ji di sëriñ Abdou Baaxe Mbàkke ibnu sëriñ Xaas Mbàkke ibnu sëriñ Afiya Mbàkke ak ki ko wóotu di Cheikh Mamadul Faadal Buso tudde xaritam ba mbokkam ma cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mohamadul faadal buso mi sax moo ko wuutu ci toogaayam di leen dénk ñoom ñaar ngir ñu booloo nasu jàppante comme ñoom ñaar ni seen waajur yi jàppante woon muy moom sëriñ Ceerno Buso Daaro ak mbokkam ma sëriñ Xaas Mbàkke ci yooyu kàddu ak kàddu mu tàggatoog taalibe aacu yi ci kàddu yooyu la tàggatoog ñoom ngir wuy na nag Cheikh Abdu Xaadir Mbàkke ci dëkk bu sell bii di Tuubaa ab diir lañ mu génn àdduna ci atum décembre ba dëppoo woo nag mu juróomi fan ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1410 ci gàddaay gi ginnaaw bu mu génnee àdduna ba noppi sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir mbakke moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeel yu mag yi ginnaaw bu ko Cheikh Abdou Khadir Mbacke ibnu sëriñ Touba Cheikhul Khadim mi nekkoon xalifa général des Mourides taxawoo ba noppi ginnaaw bu mu dellusee ci kër sëriñ Cheikhna Bousso Daaro ba jàkkaarloog njabootuk sëriñ Cheikhna Bousso Daaro Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi ngi leen di xamal ne kii génn àdduna tey ji di sëriñ Cheikhna Bousso Daaro daaro mbokk la xarit la te taalibe la yii kàddu la tàggatoog njabootuk sëriñ Ceerno Buso Daaro kon ak taalibeem doomu seexul xaddiim seede na ko ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ Ceerno Buso Daaro cheikh Mouhamadul Fadal Buso moo ko wuutu ci la 4 décembre 1989 ba nëgëni ñuy ñaanal cheikh Mouhamadul Fadal Buso mook ay rakkam ak mboolem ñun séqal sëñ Ceerno Buso Daaro yàlla na suñ borom guddal seen fan te wéral seeni cër te bàyyi leen ak barkeb sëriñ Ceerno Buso Daaro ba sëriñ Ceerno Buso Daaro nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bés bu bum daa taxawul boppam ci li ñu tudde ak màggal ginnaaw bu mu demee ci dëkk bii di njàmbur ci tund wii di càlleen ci suuf si di kokki amoon na fa ay taalibe ci tund wow di càlleen daana fa def li ñu tudde ak gàmmu daa ko màggal ngir feeñu jamono ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam màggal googu moom sëriñ Ceerno Buso Daaro daana ko taxawu ginnaaw bu mu fi bàyyi ko sax bàyyi woon nañ gàmmu ga ginnaaw bu mu bàyyi ci suuf si di njàmbur demaatoo nag ci suuf si nekk ci saalum di sëriñ xaas mbàkke aaco googu itam na am na màggal gum fa doon fàttaliku cheikh mamadul faadal mbàkke di ñeen fukki guddi cheikh mamadul faadal mbàkke daana ko fàttaliku ci li ñu tudde ak màggal jort na ne lu am ci xaadim rasul ginnaaw yàlla cheikh mamadul faadal mbàkke la màggal googu màggal na ko ay ati ati ati at ci nekkinam ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag njabootam ngi ci màggal googu lañ wéyal muy ñeen fukki guddi cheikh dul faadal mbàkke moom lañ ko booleel di ko ca sant comme nam daa sant cheikh dul faadal mbàkke njabootam itam wëlbatiku ko di ko ci sant ndax xam nañ ne ñoom itam luñ am ci sëriñ ceex sëriñ bu sa Daaro la ñuy ñaan ci taalibeb Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba soppeb Cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke bi ibnu sëriñ Touba Seexul Xaddiim yal nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi ci darajey kam soppoon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lii di jafe-jafe réew mi